waa mu ngeen may ma ma tënk ko ci lu gàtt parce que lii fi xew lu ñaaw la lu metti la lu metti ci xool la waaye lu jox war a indil sénégalais yëpp njàqare la parce que lii fi am wane na ni ñun ñëpp ñu ngi ci insécurité tey insécurité du rek violence physique ci sa yaram insécurité juridique ak judiciaire dafa am insécurité juridique ak judiciaire mooy ngay citoyen ci sam réew nga am droit yoon may la ak sa constitution surtout ngay député muy député Ayib dafe nga dugg ci administration bu la neex nga ñëw ci administration bii di DG ñu ne la doo dugg nga ànd ak huissier de justice ñu ne la yéen ñaar du ngeen dugg te jamono ja la koy xañ ñun xam nañu ay mandataires yoo xam ne ñu ngi ci biir ndax xam nañu ñan lañu réeroowuñu ak ñoom ñu ngi fii ci biir ba ñu ñëwee dañ leen a bàyyi ñu dugg moom Ayib Daffé ñu téye ko kon dañu bëggul Ousmane Sonko jël ay fiche de parrainage moo ne de semaine ci ginnaaw juge ca Ziguinchor moo atte atte bu jaar yoon bu respecté lépp ci droit mu ni Ousmane Sonko tooñ nañu ko li ñu ko dind ci liste yi jaaduwul nañu ko jox ay parrainage mu bokk ci élection yi kii ñëw fi pour jël ci ay fiche ñu gàntal ko ko donc ñooñu violé nañu suñu constitution violé nañu loi yi ak règlement yi salfaañe nañu ay àq ak yelleefu Ousmane Sonko waaye ku ko def son Sonko def nga ko askan wi yëpp parce que sénégalais bu nekk bu ñu violé say loi violé nañu droit wu sénégalais yëpp loolu nag mooy li nga xam ne moom la ñu ñëw constaté si fii pour wan sénégalais yi ni nga xam ne noonu la suñu état nërmeloo ni nga xam ne noonu la institution yi yàqoo te Macky mooy responsable bi bi mu fiy taxaw ci sénégalais yi ni leen du nekkati candidat ndax jéem na ko jéem mënu ko bëggoon na koo def amoon na ambition bi mu ngi woon ci xolam ak xelam sénégalais yi taxaw ci kanamam ne ko du am mu dellu ginnaaw ba keroog la nii dana fexe ba lépp lu justice décidé ci at ci Sénégal mu mu doxal ko ñu ñu ñu ñu mu jaar yoon. waaye ba mu koy wax dafa joxoñ baaraam ndekete opposition ndax lii ñu jël muy njëriñ ci Ousmane Sonko mu gantal ko ndax moom ak ay ministre am ñoo décidé ne du am loolu nag ñu ngi koy naqarlu di ko condamné may wax Union des magistrats du Sénégal justice pouvoir la dafa am indépendance bu jëlee décision exécutif bañ ko ñoom war nañu monter au pour exiger jàppale seen seen seen naataango juge pour que décision ba mu jël ñu doxal ko maa ngi woo conseil constitutionnel ak cour suprême bu ñu xaar ba réew mi nekk si jafe-jafe ñuy doog a jóg tey la ñu war a xam ni fii ñu jëm bu continuer nii lii du doon élection parce que Macky Sall dem di wuti parrainage ñëpp bu ñu ñëwee mooy tànn ni diw mi ak diw mi ak diw mi laa bëgg a jàkkaar lool sama candidat bii di Amadou Ba nga xam ni ak loo mën a def munoo fexe ba Amadou Ba mën a jàll parce que du capacité du coefficient personnel am ñoom ci seen bopp xam nañu ne ñàkk nañu pouvoir bi parce que ki mu bëgg mu remplacer ko matu ko donc mu bëgg a tànn ñi ko xam ni ñooñu la ñuy teg. ku ci taxawul tey xeex lii boo ñëwee say parrainage dañ nañ la gàntal itam moo tax ñun ñu ni ñoo nekk ci dëgg dañu bëgg sénégalais yi xam ne ñaanuñu lii ñuy def du lu ñu koy tàllal loxo droit la na ko exécuter jox Ousmane Sonko ses fiches de parrainage parce que loolu la yoon wax dinañu saisiraat communauté internationale yëpp ndax deru Sénégal yàqu na fépp ci àddina bi deru Sénégal yàqu na sax ci réewu Afrique yi nga xam ne suñu ginnaaw la ñu nekkoon donc combat bi combat politique la combat la te duñ ci dellu ginnaaw benn yoon pour que force reste à la loi ñoom ñoo naan il faut que force reste à la loi il faut simplement que cette force là reste aujourd'hui à la loi devant la DGE bi nga xam ne fii la ñu nekk tey di wax ak yéen jërë ngeen